di ci ànd ak cheikh bi al cheikh al mujaddid cheikhul islaam muhammad ibnu abdul wahab rahimahullah dars bee passé waxoon nañu ni cheikh bi ubbee bu mu ubbee téeram bi bismillahi rahmaani rahim te loolu mboolem boroom xam-xam yi loolu la ñu aadoo comme ni ko euh, alxaafid ibnu xajar waxee mu ne waqad istaqarra amalu al aimma al musannifin ala iftitaaxi kutubihim bil basmala mu ne saxoona aada woona boroom xam-xam yii di taalif ay téere ñuy ubbee seeni téere bismillahi irrahmani irrahim ginnaaw loolu téere bi di kashfu shubahat nga xam ne dafa méngoog groupe bi groupe dañ ko tuddee kashfu shubahat mooy muri ay lënt muri ay lënt ak tontu ay lënt cheikh bi dal li ginnaaw bi nga xamne dafa tambale bismillahi rahmaani rahim mu alam rahimak rahimakallah mu xamal yàlla la yàlla yeurum li bokku na ci pédagogie cheikh bi bokku na ci uslubam ci ay téeram yu bari non la koy défé al usulu thalatha ana la ilam rahimakallah al qawaid al arbaa al masailul jahiliya ak yeneen i téere yoo xamante ni bëri na ci li lay njëkk a xamal mooy alam mu ne la xamal raximakallah mu ñaanal la lu waral muy def loolu alam mooy daf la bëgg a xamal yow muy jàngal lii xam-xam la lii xam-xam la comme da ngaa war a tegginu danga ngaa war a tegginoo tegginu kuy sàkku xam-xam maanaam du ay foo du ay caaxaan moo tax mu ne la ealam xamal raximakallah mu ñaanal la yow mii di jàng lu waral loolu euh, cheikhuna ibrahim arruxayli xafidahullah mu ne loolu day tax kii ngay ñaanal kii di jàng nga koy ñaanal day gën a sawar ci di la déglu ndax ki ngay ñaanal kooku cofeelam day yokk ci yow képp ko am danga koy ñaanal mu xam ne yaa ngi koy ñaanal rek day am cofeel ci yow day gën a sawar ci dég ci déglu la ñaareel mooy cheikh bi rahimahullah mu koy ñaanal mu ngi lay jàngal ci biir jàngal bi mu ngi lay ñaanal yàlla yërëm la moom cheikh bi rahimahullah mu ne alam xamal rahimakallah yàlla la yàlla yërëm mu ne anna tawxida huwa mu ne tawxid mooy ifraadullahi taala ifraadullahi subhanahu wa taala bil ibada muna ne tawxiid mooy nga kennal yàlla ci ay jaamu ifraadullahi taala bil ibaad nga kennal yàlla ci ay jaamu cheikh bi nii la xamalee tawxiid am na ay boroom xam-xam yu koy xamalee nii bu nee nga sellal yàlla nga kennal yàlla ci ay jaamu lépp daa dugg kennal ko ci moomeelam loolu jaamu yàlla la kennal ko ci jaamu yu ngi koy jaamu kennal ko ci ay turam ak ci ay melokaanam loolu jaamu yàlla la waaye bari na ay définition yoo xam ne bokkut ak bu cheikh bi indi bokk na ci définition yooyu ku ci mel ni ibnul qayim rahimahullah junj na lu mel noonu mun ifraadullahi taala bi ma yaxtas bihi mooy nga wéetal yàlla borom bi subhanahu wa taala ci mbir yoo xam ni moom la jagoo mbir yu mu jagoo nga wéetal ko ci moom borom bi subhanahu wa taala mom dong nga wéetal ko ci comme bo xolé bobu général la borom bi lu mu jago nga wéetal ko ci comme fofu bo xolé day dugg ci wéetal yàlla ci ay jëfëm wéetal yàlla ci ay jaamu wéetal yàlla ci ay turum ak ci ay melokaram ndax yooyu borom bi moko jago mais a cheikh mohammed ibn Abdul Wahab ki nga xamni comprendre bu baax bu ne ifradullah subhanahu wa taala bil ibada nga wétal yàlla ci ay jaamu day melni dafa tënku rek ci tawhidul uluhiya mooy wéetal yàlla ci ay jaamu day mel ni wéetal yàlla ci ay jëfam duggul wéetal yàlla ci ay turam ak ci ay melokaaram tamit day mel ni du ko tudd waaye ñu am ci ñaari tontu ku ci mel ni na saalih sindi xafidahullah bu njëkk bi mooy cheikh bi rahimahullah bu ne wéetal yàlla ci ay jaamu jaamu da cay duggal da cay dugaal boole wéetal yàlla ci ay jëfam ak ci ay turam ak ci ay melokaanam ndax dafa jàpp ne loolu jaamu yàlla wéetal yàlla ci ay jëfam ak ci ay turam ak i melokaanam moom dafa jàpp loolu jaamu yàlla la moo tax moom mu yem rek ci wéetal yàlla ci ay jaamu ñaareel bi ñu ne moom jamono ba mu doon dund moom cheikh bi jamono la boo xamante ni bokkaale yu daan bokkaale ci jaamu yi moo ëppoon maanaam ñaan keneen ku dul yàlla di waat ci keneen ku dul yàlla di dem ci ay bàmmeelu nit yu faatu di leen ñaan nee na jamono jooju yooyu moo ëppoon yooyu mbir moo ëppoon moo tax moom ci définition bi mu daal di koy tënk ci wéetal yàlla ci ay jaamu ndax jamono jooju nit ñi dañ daan bokkaale yàlla ci ay jaamu waaye ci xamale bu ñuy xamale tawxid cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah daal di koy joxe ci xamale bu bu am solo boo xam ne dafa chaamil jaami aw chaamil wa maani maanaam dafa nekk loo xam ne dafa dafa doy dafa dajale dafa ëmb da koo tënk ba mu ëmb lu bari ibnu taymi rahimahullah mu ne tawxid mooy an laa yashrakahu min al ashyaai shay'un fi huwa min xasaisihi mu ne ñu bañ ko boole ak mbir yi dara ci loo xam ni moom yàlla dong moo ko jagoo maanaam lii di mbir yi lii mbir yi ak lu mu mënta doon mbir yi buñ ko waxee shay al ashya mbir yi bëri na malaaka yi ci lañuy dugg jinne ci la ñuy dugg bàyyi ma ci la ñuy dugg yonente yi ci la dugg ñu bañ ko boole ak dara ci mbir yooyu ci loo xam ni borom bi rek moo ko jagoo ndax borom bi subhanahu wa ay jëfam moom dong moo ko jagoo keneen du ko participer keneen amul keneen ku ci participer ay jëfam moom dong moo jagoo ay jëfam moom borom bi subhanahu wa taala moomeelam sàkk taw ne mbir amal mu am di falaka folli borom bi dong moo ko jagoo jour bu ñu gëmee nii am na keneen ku koy def bokkaale lañuy yàlla bokkaale boobu dañuy génnee diine lislaam ki noonu julli ku ñu war a julli kenn moom dong ko jagoo moom borom bi ku ñu war a ñaan moom dong moo ko moom dong moo ko jagoo ku ñu war a waat kenn moom dong moo ko jagoo comme yi ay mbirumu jagoo la ay turam ak i melokaanam moom dong moo ko jagoo lu ci mel ni gën a kawe lépp lépp lépp lépp loo gis moom dong moo ko jagoo am loxo boo xamante ni ñuróowul ak kenn ñuróowul ak lenn moom dong moo ko jagoo moom borom bi subhaanahu am tànk boo xam ne ñuróowul ak tànku kenn ak lenn moom dong moo ko jagoo moom borom bi subhaanahu wa taala comme boo xoolee définition ibnu ibnu taymiya bi rahimahullah dafa nekk loo xam dafa dajale lu bari mooy borom bi lépp ci mbir yi ñu bañ ko booleeg mbir yi ci lenn ci mbir yoo xam ne moo ko jagoo moom borom bi subhanahu wa taala cheikhuna Saalih Sindi daal di dëgëral euh, taarif wala définition bi nga xam ne ibnu taymiya rahimahullah joxe na ko euh, lii di tawxid mbokk yi balaa ñuy dugg dafa laaj ñu xamale luy tawxid ginnaaw ba ñu xamalee lii tawxid ko ni ko cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah xamale ñu bañ ko boole ak mbir yi dara wala ñu bañ ko boole ak mbir yi dara ci loo xam ni moom dong moo ko jagoo moom borom bi subhanahu wa taala boobu ñenn ñi ci définition bu ñuy définir tawxid da ngay gis ni xaaj nañu tawxid ñetti xaaj léeg-léeg ñenn ñi boo demee lañ la naan ifraadullahi taala bi rububiya wal uluhiya wal asmaa wa sifaat moom mooy ñu kenn yàlla borom bi subhaanahu wa ci moomeelam ak ci jaamu ñu koy jaamu ak ci ay turam ak ci ay melokaanam ibnul juñu na lu mel ni a cheikh Fawzan indi ko ci téeram boobu mu bind ci aqsaamu ci aqsaamu comme ci définition bi gis nga ni tawxid dañ ko xaaj ñetti xaaj muy ar wal uluhiya wal asmaa wa sifaat mooy wéetal yàlla ci ay jëfam ak wéetal yàlla ci jaamuñu koy jaamu ak wéetal yàlla ci ay turam ak ci ay melokaanam ak turam ak ci ay melokaanam tawxid bi ñu xaaj ñetti xaaj léeg-léeg boroom xam-xam yi ñaari xaaj lañ koy xaaj te mooy xaaj bu njëkk ba waaye tawxid bi xaaj ko ñetti xaaj ibnu manda junj na ko ibnu manda mooy ko njëkk junj ci téeram boobu di at tawxid euh, imaamu tabari lu jiitu loolu moom it xaaju tawxid yi euh, cheikhul islam mooy ku ko gën a tasaare mooy ku gën a tasaare ñetti xaaj yi waaye lu jiitu cheikhul islam ibnu manda ak ibnu jarir ak tabari jot nañoo junj ñetti xaaju tawxid yi muy xaaj tawxid ci ar rububiya mooy wéetal yàlla ci moomeelam wal uluhiya ak wéetal yàlla ci jaamuñ koy jaamu wal asma wa sifaat ak wéetal yàlla ci ay turam ak ci ay melokaanam ibnu taymiya moom moo ki nga xam ne moom moo ko gën a tas waaye ni ma leen ko waxee ibnu jarir ak tabari na ko ak ibnu manda bu dee ñaari xaaju tawxid ibnu abbas junj na ko muy rububiya ak uluhiya bu muy firi aaya bi wa maa yu'minu aktharuhum billah ba mu jeex dafa ne ñu bari ci ñoom duñu gëm yàlla lu dul dañuy bokkaale Ibn Abbas mu koy firi mooy gëm bu ñu gëm yàlla mooy wax bu ñu naan yàlla moo sàkk moo ñu bind mooy taw waaye ànd ak loolu dañ daan bokkaale yàlla ko Ibn na ñaari xaaju tawxiid ci wax bu mu ne gëm gëm yàlla moom mooy gëm ni yàlla mooy sàkk mooy taw comme foofu indi na tawxiidu rububiyya mu ne ànd loolu nag dañ daan bokkaale yàlla di jaamu leneen di jaamu yàlla di jaamu yàlla di ko bool di ko jaamuwaale ak yeneeni yeneen i foofu gis nga junj na bokkaale ci uluhiya te contraire di tawxidul tawxidul uluhiya ñeneen boroom xam-xam yi maanaam tawxid bi ñu xaaj ñetti xaaj dañ ko def ñaar muy tawxidul maarifa wal isbaat ak tawxidul qasd wa talab bu ñu nee tawxiidul maarifa wal isbaat mooy xam ak saxal tawxiid boo xam ne xam la ak saxal looy saxal mooy bi nga xamee turu yàlla ak i melokaanam ak ni yàlla moom moo sàkk ay mbiram nga saxal ko loolu dafa junj ñaari xeetu tawxiid yi di tawxiidul rububiya ak tawxiidul asmaa wa sifaat ak tawxiidul asmaa wa sifaat ndax al maarifa wal isbaat mooy xam turu yàlla ak jëfam daal di koy saxalal yàlla borom bi subhaanahu wa taala loolu dafa junj ñaari xeetu tawxiid yi di wéetal yàlla ci ay jëfam ak wéetal yàlla ci ay turam ak i melokaanam ndax ginnaaw ba ay jëfam ak i ak melokaanam da koy saxalal yàlla borom bi subhaanahu wa taala beneen bi di tawxiidul qasd wa talab qasd wa talab mooy maanaam sab jaamu nga jublu ci kenn kenn dong nga sàkku ci kenn dong muy kan muy borom bi subhanahu wa loolu mooy tawxidul uluhiya comme da gis ñenn ñi dañoo xaaj tawxid ci ñetti xaaj ñetti xaaj yooyu ñu boole ko waat xaaj ko ci ñaari xaaj muy tawxidul maarifa wal ithbaat ak tawxidul qasd wa talab tawxidul maarifa wal isbaat dafa ëmb ñaari tawxid yi di tawxidul rububia ak tawxidul asma wa sifaat ndax maarifa wal isbaat mooy wéetal boo xam ne ci xam la ak saxal da ngay xam jëfu yàlla ak turu yàlla ak melokaar ak melokaaram nga saxal ko tawxidul qasd wa talab muy tawxidul uluhiya mooy sab jaamu yàlla kenn rek nga ciy sàkku wala kenn rek nga ciy jublu muy borom bi subhanahu wa taala ibnul qayim daal koy xaajaat moom yeneen ñaari xaaj mu tuddee ko at tawxidul ilmi wa tawxidul amali bu ne tawxidul ilmi mooy wéetal yàlla maanaam ilmi mooy xam lay xam jëfu yàlla ak i aki ak i melokaanam nga daal koy saxal nga daal ko ci wéetal ak tawxidul amali moom mooy jaamu yi ngay jaamu jëf yi ngay jëf nga daal di ci wéetal kenn mu yàlla loolu mooy tawxidul uluhiya comme incha allah ñu yem fii euh, ba beneen yoon incha allah euh, buñ ñëwaatee ñu daal di àggali wallahu aalam sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala wa ashaabihi ajmain